kon daal li ñu fas yéene def mooy li nga xamante ne moom lañ baaxoo woon di def saa su ne ñu jël dars ci suñu téere bi nga xamante ne mooy seerul xalb bu Mawlana Cheikh al tey nag ñu fas yéene def suñu juróom benn fukk ak juróom ñaareelu tomb baay mi ngi naan فغادرت أوطاني وأهلي وأسرتي أجوب الفلا لم أشكو قط I left my country, my family and my children. I have crossed arid areas without complaining about any difficulties. J'ai quitté mon pays, ma famille et mes enfants. J'ai traversé des zones arides sans me plaindre d'aucune difficulté. mbokk yi Abal Faydu Tijaani Barham ibnu Abdullah mu fa xaadartu awtaani ma daal di dépare réew wa ahli ma bàyyi samay ñoñ wa waaye tam ma bàyyi samay njaboot ajubul fala may dog àll tunay lem eshku musuma tawat xattu mukk kalaala benn coono mbokk yi ñuy wax rekk ni cheikh al islam alxaaji ibrahim Niass mu ne man baay maa ngi déparé sama réew ma bàyyi fa sama waa réew ma bàyyi fa samay ñoñ waaye itam ma bàyyi fa sama famille ma daa nag traversé àll yoo xamante ne àll yu wow koŋ la ay distance yu sore sori te musuma jooytu mukk benn coono lu waral loolu mooy maa ngi jëm ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir mission bi nga xamante ne yonent bi matal na ko te mooy diinal islaam ma toppaat ci tànkam gën ko tasaare mbokk yi lii moo nekkoon dars bu ñu waroon jël tey di leen san di leen gërëm wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin jërë ngeen jëf